ayca tout droit nag baa ngi nii ah ceebu Joal moo ko jël waaw benn nag lañ tegoon amul partage des bœufs parce que partage moom lu ñuy partager day nekk au pluriel donc remise du bœuf la ñuy wax en bon français ceeb a ngi nii ak nag bi ceebu Joal maa la fa ne ànd ak mafia bi waa écrit ba jibee ngi nii laay njool yàlla ndaañ ne waaw <laughs> ziar nañ la waa ak Koli. waaw ah, jëloon ziar bu wér kaay. lépp jaam waaw sant yàlla ngeen. nga fi Diouf yor tey mbapat bi benn nag lañu tegoon nga jël nag bi. waaw gis nga ñëw comme dab rek sama dëkk. waaw waaw mooy loolu. forme bi entraînement yi d'abord ci loolu la ñuy wax. Uh-huh. gaa yëpp nee nañ ceeb indi na doole. waaw ñu ñu ñu sant yàlla daal. Ah. waaw sama gaa yi ñu di di gërëm waa équipe tamit. waaw ñoom surtout maa yow. waaw yow bi ñuy motivé. ñoom Ndiol bu Sana ñoom Jibi ñoom Laay. waaw ñoom Babou Sarr ñoom Koli. Mhm. ñoom Góora di bi lay aw ma seetlu gars yi ñu son si man trop ñoom Pape mais ceeb doole ju bëri ji macha allah ceeb ñaata séance lay def. waaw instant yii deux deux la ñuy def. xëy nga laal matinal bi ngoon nga wàccaat. waaw wàccaat waaw Ah. légui lamb ji tay noko ko gisee waaw kontaan rek sant yalla bu wéree mhm. waaw di ubbi tamit di ñaan yalla di ñu ubé ni mu continuer nonu waaw mhm. ah. da nga ñëwon pour tijji jël nga nak bi no gisee nak bi nak bi wa gari di tijji tek looy wax ci nak bi waaw nak mom rafet na mom waaw ah. waaw rafet na torop sa mhm. légui nak ciép wax ji wax ji moy xam nga fi mooy mujj wir wir jaari ndari ciép pol Mant lima lay wax moy hmm. ci est ce que bi ngay nek boy di jang beure uh-huh. poids lourd buñ doon wàcc ci mbapat comme ni nga def ni est ce que boy yi dinañ jël wala yow bi ngay jël sa premier nak hmm. garant yi buñ doon wàcc est ce di nga am chance yu jël nak parce que ñëpp né nañ ngeen xaar mbeur yu mag yi. amna lu dugg sama gémmiñ de mais damaay continuer wax oh, ci lu waral wàcc ci mbapat benn nak xaro lamb yu mag yi. non contact lek oh, contact la la wut ñun wa mais newul ay affaire yu beure ay nak ni ben nak ni wa bilay gars yi fii yu bëri yëpp samay morom lañ xanaa xanaa xanaa poids laa ëpp ak gabi rek mais gars yëpp fii samay morom lañ hmm. yàlla xam na loolu mais la mu dee amul morom waaw loolu tamit am na moom hmm. waaw garab moom si kaw lay yi waxee hmm. ah. ah kon ceeb day continuer di wàcc si benn nag yi wala ceeb mun nañ koo xaar ci quinze nag si mois yi le dix huit ak le vingt wala lambu zilo bi le million bi le octobre maa ngi fëpp ah. waaw waaw ah, waaw acca kon mi ngi noonu ana njool lu bàyyil benn nag yi ngay bëre ay ay ay diis nag. baal naa sama raq yi léegi. sa raq yi. sama raq yi laay may léegi. ñu wàcc nga palmarin tane woo leen yéen ñëpp a yem. man may naa leen de gisoo booy ba dama koo yëkkati loxo bi may ko. Ah. waaw kon bàyyi nga benn nag yi. bàyyi naa. Hmm. nooy waajalee saison bi. saison bi ah di ñaan yàlla rek mu may ñu rek. wóor hmm. yaa ma gën a xam rek. yaa ngi tëral. Hmm. <laughs> bu baax moom laay ndekkee moom lay reere moom laay añee. la est ce que booy ñu ngi tëral fu la ah ñuy góorgóorlu de cinq wala trois ñuy góorgóorlu de ki kii mela ñaaw mela ñaaw ni mela ñaaw kon nañ nañ nañ ko dañ ci def kot jégal ko ni mela ñaaw lamin jar na def kot ceeb góorgóorlu laay laaj ceeb nee na ñaari séance lay def. deful benn ñaari séance. bi daal xam naa ne bu amee trois jours bu taree. <laughs> kon ñaari séance yi muy wax ci semaine bi la nekkul ci jour. ni mel a ñaaw rek yow. ok ceeb góorgóorlu. gars yi dañuy aimé sosal Lamine. <laughs> Dakar gars yi sosal. li ñuy wax xam naa ci tuuti de. dagal dagal jibi jibi lu tax bëre woo yow mi yaay mbëru mbapat nag yow mi yaay booy lu tax bëre woo waaw ah. si ko mu ñëw waaw ah aca kon nice baabu xaalis borom ket bi baabu xanaa léegi wér nga gis naa fan yéeg ñu ne baabu daa xawoon feebar affaire yooyu noonu baabu léegi woo daa nam cerke mbiyu fop nice ah foogum koy oxa wodeer na fuud ke mbapat bo trois heures du matin leegi te na tane ata a paax a kum o ley ka koy a andoona yee a fiis fe doonena a weeke ndoona teemeed ɗik a weeke teemeed naxik ku jeg na jegna a jeema nu góorgóorloox pour Babou wod kum o lay ka den oxey gidma den kon Babou lay axe gidma nuun